asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, dafa am vidéo boo xam ni eh, dama ko dañ ko déglu jële ko ci internet mu wax ca wax ju yéeme ci murit xaadir tijaan laayeen ak mboolem eh, tarix yi nga xam ni ñu ngi nekk Sénégal yëpp mais ñaan ngeen teewlu ko ba noppi bu defee bu jeexee nag ma door a ma door a àggale li ma wax ni moom laa leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sama mbokk jullit yi sama mbokk jullit yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew Sénégal dafa am loo xamante ne bëgg naa ko fàttali bépp jullit te ñaan naa bépp jullit boo xamante ne gis na sama vidéo bi na ko partage su ko mu nee yóbbu YouTube na ko ko yóbbu ak képp koo xamante ne xam na ko xam kooku nekk ci yoon tariqatul tijjaaniya walla mu nekk ci yoonu murit maa ngi koy ñaan message bi na ko tasaare ndax mu jëriñ ñépp ndax bu ñu xoolee ba xool tey ci Sénégal tijjaan yi nga xamante ne dañuy woote ni ñoom dañoo bëgg a yenent bi dañuy fen bëgguñu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne dañoo doon murit woote ni dañoo bëgg a yàlla dañuy fen ndax suñu bëggoon yenent bi bëgg yàlla danañu topp li yàlla wax ndax yàlla dafa ne atiwullah topp leen yàlla wa atiwu rasul ngeen topp yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nag yéen waa Sénégal moytu leen ci wirdu tijjaan moytu leen ci tariqatul muridiya ndax yoon yi yoonu bid la yàlla bugg ko yenent bi santaane wu ko yàlla nee na wa man yushaqiqi rasula كيف كباي يون يلنتبي ومن يساق الرسول كيف كباي يون يلنتبي من بعد ما تبين له الهدى جنا بمحمد الجبليل ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين متبتيون نيمان مريد من باي فالله من لا إلا من غادر لا من لمدون من تجان لا ويتبي متوب غير سبيل المؤمنين يون بيغا خامتاني دو يون نيغا خامتاني دانيو غوم يالا غوم يينن تيبي يالا نينا نوليه ما تولى دا نيو جوبلو خولام تي لومو جوبلو واي بيس بنت ديغولو لين يالا نينا ونسليه جهنم دا نكو دوغال تي بير جهنم وساءت مسيرا كيف كو خمانتني فوف موي ديكواي بوننا اب ديكواي كون نك يروا سنغال نيو راغال يالله سبحانه وتعالى يالله ماي نيو بروم خام خام واي لي تي غنا باري بروم بيد علي نانغو ньо واخ نيت ني دك داغي غيس نيت موي واتي كينن كوتول يالله سبحانه وتعالى يننتي بي نينا بوكنا سي بوكاله كوي واتي كودول يالله سبحانه وتعالى man kana yahlif képp kuy waatee falyahlif billah wa illa falyasmut képp kuy waatee na waatee yàlla soo dul waatee yàlla noppil nañ xool nit ñi nga xamante ñu ngi takk téere def ay gallaaj di ko def si seen ndigg di ko def si seen jaaro ñu yaakaar ne yàlla la ñuy nax nako ñu kenn seen bopp la ñuy nax kon nag mbokk jullit yi nañu moytu tariqatu tijjaaniya nañu moytu tariqatu muridiya tarixa yépp tarixa la yi nga xamante ne yàlla santaanewu ko yenent bi santaanewu ko law kaana xayran la sabaquuna ilay lu doon lu baax la abubakar def ko lu doon lu baax la umar def ko lu doon lu baax la ali aw usman aw sahabat rasulillah radiyallahu anhum wa ardaahum ajmain waaye nag mbokk nañ xool tey suñu jàkka timis bu jotee def mbalaan toog foofu di def ay wazifa yi nga xamantene yalla santane santaanewu ko yenent bi diglew ko sahaba mi digluñ ko dégluleen li lay li la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yenent bi neen alaykum bi sunnati digal na la ngeen top sama sunna wa sunnatul khulafa'u rashidin ak ñi nga xamantene ne ñoo may donn sama ginaaw moy abou bakr mooy umar moy usman موي علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وعن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلنتي بي دولي واياكم ما نلندي تري ما نلندي تري واياكم ومحدثات الامور مويتو لن دي كريا اي مير دي كو دوغول تي واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه لب لنيو كريي sosal ko boole ko ci diina ji te yenent bi defu ko diglewu ko gisul ñu koy def mu noppi nee na loolu bidaa la wa kullu bidaatin dalaala lépp loo xamante ne bidaa la ci ab réer lay yóbbu boromam wa kullu dalalatin fi nnaar bépp réer boo xamante nit ki dee na ci safara lay yóbbu boromam kon nag mbokk Sénégal kon nag mbokku Guinée kon nag mbokku Gambie kon nag mbokku Mauritanie kon nag mbokku général Afrique kon nag mbokku julli ci partout dans le monde muy Arabie Saoudite muy partout nañu moytu bidaa nañu moytu di def wirdu tijjaan nañu moytu di def ay yoon yoo xamante ne dañoo yaakaar ne ñoom dañoo bëgg a yàlla wala yaakaar ñu ngi topp yàlla fekke ñu ngi ci réer yàlla nee na hal ataaka hadisul xaashiya wujuhun yawma idin xaashiya aamilatu naasiba tasla naaran haamiya ñi nga xamante ne ñu ngi def ay wirdu tijaan walla topp ci yoon bi nga xamante ne dañuy ne ñoom ay murit lañu ñi nga xamante ne ñoom ay bay faal lañu duñu julli duñu woor bu ñu deewee dugg aljanna ñu ngi nax seen bopp xanaa nag aljanna boobu ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp xanaa nag aljanna bi yàlla moomatu ko yàlla nee na aljanna bi jox naa leen ko ndax jëf yu baax yi ngeen daan jëf ci àdduna léegi nag am nañ ñoo xamante ne ñoom ñoo moom aljanna su ma neexee julli su ma neexee duma julli man su ma deewee dugg aljanna kon nag ñu ngi nax sunu bopp nañ tuub delloo ci yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla woon dëgg may ñu mun a topp dëgg yàlla nañu yàlla woon fenn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 ñun dañuy woote te yàlla rek tax soxlawuñu kenn remercier wuñu soxlawuñu dërëm kenn yàlla lañu yaakaar yàlla lañu yaakaar soxlawuñu ragaluñu tamit dara dañuy wax dëgg insha allah wa qulil haqq min rabbikum kon nag mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw kon déglu ngeen vidéo ba pare yaakaar naa liñ ci wax leer na nañ kii ko ko gis xam ni du sénégalais wala guinéen la wala malien la boo xam ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi di ay salafiste ay wahabiyoon ak moo xam ne ñu leen mën a tuddee am na loo xam ni ñemewuñ ko wax voilà léegi nag euh, moom xam nañ ni étranger la xamul dara ñu ngemb ko euh, donc ngir mu mu wax wax ñu ñaaw ji te ko ci tuux yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp te mbooleem quatre-vingt-dix pour cent musulman yëpp di ci di ci référé wu waaw kon day day wane rek kon li nga xam ne moom lañ daan wax ci gannaaw di ko xeex Eh, maanaam jëmee ko ci ñoom maanaam lii da koy firndeel da koy dëggal ndax lii mu wax nii lu eh, caagee ne ci moom rek la maanaam mbooleem ñi ñoom ñi bokk ci ñoom ñëpp te nekk ci Sénégal ak àdduna ak ñu mën di ne lii mu wax nii moom mooy li nga xam ne moom moo nekk ci ñoom noonu lañ xalaat tey itam yàgg naa wax ni waxtu ñu demee ba am doole ñoom ñii danañ génne ngànnaay waaw bis bu ne nag dañuy gën a ñeme rek ndax kenn du réagir man su ma waxee wala keneen du wax maam Cheikh Mbacke sëñ Xaadim aw ba mi ngi ciy xeex ñeneen ak ñeneen ñi ciy xeex waaye loo ci wax yow dañuy yow sax boo wutul yow dañuy yedd yow sax lañ naan nangam lii wala nangam nangam laa waaye lii ku ko déglu xam ne wax ju ñaawlo ju bon joo xam ne ña ko ngemb waxloo ko ko nekk ca gannaawam duñu ñenn ñu dul ay wolof lañ nekk ci Sénégal gii nekk Touba nekk Dakar nekk Thiès nekk Kaolack fu ne ña waaw doon nag ñoo xam ne ñu mot a bàyyi xel lañ te ñu mot a jógal lañ ndax bu ñu leen seetaanee ba ñu am doole day sab yàlla nañ ko réccu de waaw loolu rek la amoon lu ma ci dolli ñu jégalu ñëpp